kaawoo kaawoo dafa kaawoo dafa kaawoo man dee ci sësëwoo dafa kaawoo man dee ci sësëwoo dafa kaawoo may dee leen ci sësëwoo may dafa kaawoo dee leen ci combat bi alaaji bi fa nee na combat bi tëw fi am waaw yi ci ëpp nag dañoo dañoo niil. waaw combat yu tëb moo fi am. yi ci ëpp dañoo niil. mais lamb si di jaxas di réussir na ah, moom wax dëgg yàlla. waaw wax naa ko ko ba nee naa ko waa Thiès namoon nañ la. dëgg la namoon nga amateur yi waaye nag wax dëgg yàlla namoon nañ bis. dëgg la saa yu tëggee bis moom. waaw boo ñëwee stade rek xam ni. xam moom nag day joxe ak xam doomu nag sëg. waaw si day joxe ak drapeau bi nag maître Diagne Ousmane Diagne. waaw maître Ousmane Diagne man gisatu ma ko ñëw naa ah est-ce que néewul délégation. waaw waaye lu ko war lépp da koy matale moom bu ñëw bu ñëwul. waaw waaw xam nga boo matalee ba pare yónnee. waaw sa ndaw moo la demal. Eh, gën dar door loolu. gis Sali Faye gis nga. bu dee bu tàng na mu door nga gis nga na xeex nañu. gis nga Sylvie Sali Seck gis nga. lii la bëgg de. nañu. maar na ko. maar na ko waaye bañ na. waaw dëgg la dëgg la ko def nii. la ilaha illallah da ko braqué la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah xale ba da ko braqué daw rek moom ci suuf daan koy braqué Jules bu sali daa doon بجوزوف لا إلا غير لا قد لا قزلو نمال كاو